déglu naa la muñ la. dama la déglu muñ la man dama la déglu muñ la. oui. <coughs> Euh, fii république la Figues. je vois monsieur Pape Malick Ndour ministre de la république. république boobu dama am respect si moom. di laaj su may ndaw ak jeunes yi su may doom ñu am respect si république googu république lay waxal waxuma ak Pape Malick Ndour intitut personnel. Ndour waxuma ak moom république laay waxal. et la république dafa am waxtaanam dafa am waxam mu am kodam mu am léppam loolu laa gisul si yow. bu loon république fii laay teg suma affaire jaar ñi dem suma yoon mais j'ai beaucoup de respect pour ma république. si ministre yoo xamante ne ñun ñoo leen di fay sa ce sont les contribuables ce sont les sénégalais dafa am lu ñuy xaar si ñoom opposant nag. bés boo yéegee ma am exigence bu may laaj si moom bu wàll bu fekkente ne ministre la wala président la wala député la comme lu nga ko waxee sànq d'accord na ak yow mais xaaruma la si feneen si yenn wax wax bi loolu la du leneen on ne fait pas dans un jugement de valeur on fait face à une république dama ne sànq ba nga waxee affaire bi j'ai été choqué j'ai été encore beaucoup plus choqué tey parce que maa ngi doon xaar leneen parce que dafa am loo xamante ne ak loo ma munti xuus dafa am lu may représenté 18 millions de sénégalais dafa am wax boo xamante ne mais nag du ma si xuus noonu nga xam noonu nga jàppee république noonu nga ko jàngee. Ah. noonu nga koy mais ça pour moi c'est. mais Charles attends il faut que je te pose non moi j'ai dit encore une fois j'ai été choqué quand je l'ai entendu te xam na jigéen yu bëri Sénégal. ak mais Charles non vous plaît je vous ai. dama la bëgg plus d'une heure. allez-y ma la toog déglu la. di xool mais waaw. ba nga kii si wàllu économie nga am lu nga développé si wàllu économie ci càq càq transport quelque chose qui est quand même depuis plus de dix ans. dans le transport. ay xale yoo xamante ni ñu ngi koy liggéey jóge bitim réew ñoo def nii ba ñu ñu def si liggéey bu doy waar ma toog déglu il y des choses sur lesquelles bu nëndu mais dafa am loo xamante ne pour man c'est fondamental monsieur le ministre. et je parle au ministre de la République du Sénégal dafa am fu mu war a dafa am foo xamante ni du foofu musa wàcc muy man muy këpp da ngay souffrir nit ñi wax nga nangu ko parce que la République elle est impersonnelle elle n'a pas d'odeur elle n'a rien nous les hommes maintenant on est à nos niveaux ça c'est nos niveaux je regrette mu am wax bu ñuy wax par rapport à la République euh, maintenant si on ne peut pas s'entendre sur ça Charles. C'est à désespérer de notre république. Wow. Ça veut dire qu'on a une république qui dit les choses trivialement, avec insolence, te loolu du république. Charles et je man, suis d'accord avec vous. pour ok dinaa loolu dinaa si wax ñaari affaire laal la wax. bu si njëkk bi mooy man.